li ñu fi dajale tey mooy junni ak ñaar téeméeri saako ceeb yu ñu jënd pour jàppale ko askan wi nga xamante ni feebar bi daf leen laal ñooñu mën nañ cee wax ñi nga xamante ni mooy artisan yi ndax gis nañu ne bi mbas mi amee ba léegi seen liggéey doxatul jox nañ leen ci ñaar téeméeri saako ñi nga xamante ñooy chauffeur interurbain yi ñoom it jox nañu leen li nga xamante ni mooy téeméeri saako boole ko ñaar téeméeri masque boole ko ay lave-mains yu bari ak ay détergent ak quatre termoflage pour ñu mën a ubbiwaat garage yi li xam ñooy chauffeuru taxi ñoom it jox nañ leen ci lu tollu juróom-ñetti fukki saako ak masque yi muy àndal li nga xamante ni mooy chauffeuru jakarta ñoom it jox nañ leen ci juróom-ñetti fukki saako dana ànd ak aussi ay masques yi nga xam moom la war a àndal chauffeur u Mbàkke ñoom it am nañ ci juróom-ñett fukki saako ak masques yi war àndal ñi nga xamante ñooy tailleur jox nañ leen ci téeméeri saako te ci boole masques yi nga xam moom la war a àndal ñi nga xam ñooy bàyyi peel yi ak ñiy liggéey ci maçonnerie yi ñoom it yëf laal na leen jox na leen ci juróom-ñett fukki saako yoo xamante ni incha allah rabbi danañ ko en enlever léegi li nga xamante ni mooy ñiy dawal charrette ñoom it laal na leen jox nañ leen ci lu tollu juróom-ñetti fukki saako ak masques yi war a àndal li xam mooy croix rouge ñu leen di félicité bu baax ndax bi mbas mi amee waxtu yi nit ñi di tëdd seen kër ñoom ñi ngi jóg takk seen ndigg ne ci àll ne ci biir dëkk bi jigéen yu am doom ñoo lay yóbbu ku feebar ñoo lay jël si bàyyi seen lépp fanaan ci mbedd yi bu bët set ñoom it am nañ ci ñeent fukki saako bàjjenu gox yi ñoom it day jigéen ñu jàmbaar ñoo xamante ni saa su jafe-jafe amee lu laal ci jigéen ak doomam ñooy jóg ñoom it ñu sonn lañ ci mbas mi ndax heure yu nekk jóg nañ ko di accompagner jigéen ñi leen taxaw pour ñu mën a dem hôpital buñ tollee ci wàllu matu ñoom it am nañ ci juróom-benn fukki saako. kon léegi loolu mooy GIE bu njëkk bi nga xamante ni moom lañ jote a élaboré nii te it ni ma ko waxee bi état du Sénégal tegee benn plan de riposte nationale ñun commune Mbacké ñun dañoo. sukkandiku ci plan de riposte national boobu teg benn plan de riposte communal bii mën nañ ne mooy juróom-ñaareelu étape boo xamante nii def nañ ko nga am saa su nekk rek fukki fan ak juróom yu nekk rek am na action jëm ñaar fukki fan bu ñu war a def boo xam mooy dëppoo ak jafe bi bi nga xamante ni mbas mi teg na ko population yi kon nag ñun suñu warugar mooy euh, segam commune démembrement état la bu état tegee programme da ci da ci da ci orienté wu toog nag ci dëkk bi bokk ak population yi jafe-jafe yi andi ci ay solution pour que saa su soxla amee rek ñu mën a yóg taxaw Croix-Rouge nag ñi leen di féliciter euh, particulièrement parce que bi nga xamante ni mbas mi am na waxtaan naa ak ñoom yëkkati ambulance médicalisée jox leen fu huit heures jotee ba six heures du matin ñu ngi ci àll bi guddeeg bëccëg di sonn vraiment li ñu sauvé ci ay bakkan kenn xam nu kon gàcce ngaaraama Croix-Rouge de kon maa ngi ci turu conseil municipal de Mbacké maa ngi sant ñi nga xamante ni ñooy waa Mbacké lii nag mairie bi su ko defee c'est parce que conseil municipal bi moo ci ànd d'accord ci joxe ci ndigal ñu mën a jóg jënd loolu pour jébal ko askan kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax. Nous venons de procéder à la distribution des vivres composés de 1200 sacs de riz à toutes les couches qui sont impactées par le covid la COVID-19. Euh, ces couches qui sont impactées, on peut citer les artisans qui ont bénéficié de 200 sacs, les chauffeurs interurbains qui ont bénéficié de 100 sacs, les chauffeurs de Mbaké et de Touba qui ont bénéficié de 80 les chauffeurs de taxi ont bénéficié 80 sacs. Les charretiers ont bénéficié 80 Les chauffeurs de Jakarta ont bénéficié 80 sacs. Les Badjanougor ont bénéficié 60 sacs. La Croix-Rouge a bénéficié 40 sacs. Donc la liste est exhaustive. Donc je ne peux pas, j'ai pas je n'ai pas les noms des bénéficiaires Comme le plan d'action national euh, par le chef de l'État, le président de la la COVID-19, nous, nous avons orienté et programme communal dans le cadre de la riposte un programme. Et nous sommes, on peut dire, à notre septième étape de plan, par rapport au plan d'action. Nous venons de procéder à la donation de l'IF de 15 555 masques, 40 thermoflash, euh, 50 lave-mains, 500 litres de détergent pour accompagner l'État pour la réouverture, la réouverture des classes. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner les impactés. Et nous ne serons pas arrêtés là, parce qu'il y a d'autres perspectives qui sont devant nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons acheté ces 1200 sacs pour accompagner dans un premier jet les artistes. Et Inch'Allah Rabbi, d'autres actions viendront donc jusqu'à l'extinction totale ou bien partielle de la pandémie au niveau départemental. Puisque Mbaké est le chef-lieu départemental, donc euh, Nous ne pouvons pas euh, limiter la lutte au niveau communal. Mais nous allons voir plus loin au niveau départemental, voire régional. C'est ainsi. Euh, à côté de l'État, qui au moment où je vous parle est en train de distribuer des vivres pour les nécessités, nous, mairie, en tant que démembrement de l'État aussi, nous nous attelons à faire de même pour les populations. Et je voudrais rassurer les populations de Mbacké que nous sommes là, près d'elles, à les accompagner à tout moment, là où besoin se fait sentir. Notre rôle, c'est de rester, quand il y a des difficultés, à côté des populations, de vivre avec elles les difficultés afin de combattre ensemble cette, euh, cet ennemi qui est la COVID-19.